jàmm ji info point net informer, et divertir dans la paix yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné nga xam ne moo di jàmm asalaamaaleykum mbokku internet yi mbokk yi mu mel ni ci jamono ju nekk saa su ne nii la ñuy ànd ak yéen rawatina ci actualité yi nga xamante ni itam ci euh, spécial tabaski ah spécial tabaski saa su ne euh, danañ gis ci mboolem gox-goxaat ci mboolem ci biir réew mi nga gisante li nga xamante ni moo di opération tabaski moment bi ñuy wax ak yéen jàmm ji info point net doxante fii nga xam ne ci diwaanu Parcelles Assainies unité euh, waxee xam naa ne gétt bi ñu ci bari danañ ko ràññee lu ci bare bari muy opération bi nga xamante ni euh, tamit sunu doyen euh, Lamine Samba bu TFM dañ koy faral di gis tam muy taxaw euh, ci liggéey bu am am solo mu mel ni mënewul foofu rek waaye tam dañ koy fekkaat fii mais balaa ñuy sori ci loolu dañuy ñëw rek ànd ak le président Moustapha Samb mi nga xamante ne tam moom ci boppam moom la ñuy jox kàddu gi mu daal di ubbeeg ñun ci ay waxtaan bu ko defee ngeen toppaat ñu mën a ànd ak Lamine Samba. waaw ñu euh, leen ko waxee rek euh, ñu tàmbale suñu jotaay fii ci gétt gi ah gis nañu xar yi bu ñu ko xoolee rek tabaski daanaka ñu ngi koy waajal euh, sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu Samb. waaw ah, maa ngi lay fay waa jàmm ji info maa ngi leen di fay bu baax di nuyu mbokk internet yëpp si Sénégal ak bitim réew. Euh, Moustapha mu mel nii ba ma ñëwee euh, fas yéene dafa euh, jotaay bi muy interview bi ak Lamine dafa ne ma directement demal ci Moustapha moom mooy ubbi jotaay bi bu ko defee ma daal ñëw balaa ñuy sori lu waral tey sa teewaay kàddu gu ñu yëkkati ko teg ko sa sa sa loxo. waaw parce que xam nga ànd boo gis daal dafay am ku koy jiite macha allah rek fi affaire famille la ñu bokk kook suñuy rakk ak suñuy jarbaat mais comme Lamine tamit ay activité mënewu ko pour cent pour cent muy waaw toog si fii léegi man su vingt jours desee si kii rek ma selle samay activité pour ñëw après léegi ak waaw gérer gérer man ak samay jarbaat ak samay rakk affaire yooyu après ñu jaamu si yàlla waaw liggéey si jaamu si yàlla waaw. d'accord depuis combien d'années ngeen ko tàmbalee ñaata at ngeen tàmbali di taxawal gerte fii parce que ñu bëri am na ñoo xam ñu ngi leen di soog a jàkkaarloo à travers jàmm ji info ñu ngi leen waaw pour wax ne comme gétt pour samp gétt moom bi mooy deuxième année bi parce que daaw lanu ñu wax waxoon daal mu ñëw waxtaan seek man na ma na investir ci élevage ñu def ay poulailler élever waale ay xar après bi mu ñëwee macha allah bi tabaski bi ñëwee ñin ko jaay ba tey ba tey dañuy rafetlu liñ leen jaay qualité bu baax la te macha allah tamit. waaw jaamu yàlla daal lañ si gënoon na jublu ka ak côté xaalis bi waaw. Euh, mais mais mais ci côté xar yi foofu sax laa jëm directement euh, da am seen client bopp yoo xam ne chaque année euh, ñoom dañuy fixé di ñëw fii wala tamit saa su ne tamit dangeen yor seen client rek yoo xam ne da ngeen xaar seen i client bopp. waaw kii bërki dem rek man ak man ak moom yaa ngi ciy waxtaan mu ne ma lii de daaw presque boy yi fi nekk doon nekk mën naa ne musuma ñëw ñu ne ma am. cent mille fa mu ngi nii benn xar la nu jaay wala leneen parce que comme moom wax dëgg yàlla waaw euh, am na ay xaritam ak ak ay am di jàmmam ay nitam yoo xam ni dëgg yàlla dañuy taamu sax pour jënd si moom. daaw bi mu desee presque xaw ma deux jour xaw ma trois jours la la ñu nettoyé fii dem wutaat ay sable de dune def feek teg sunu bâche dem. parce que wax dëgg yàlla clientèle bi amoon na macha allah ñu jaay xar yi avant avant tabaski di agsi waaw loolu moom yàlla may na ko quoi parce que moom am na ay nitu boppam ñoo xam ni mën nañu jóge suñu su ñi dëkk fii suñu jëndul sax am na ay xaritam ak am di jàmmam yoo xam ne mën nu jóge fa la ñëw jënd xar yi. d'accord waaw euh, léegi fu may daana rek mooy euh, euh, du ñàkk xëy na loo gis rek ci jamono peut-être dina am tuuti loo xamante xëy na duñu ne lépp à pour cent dana mat peut-être dina am tuuti ay difficultés yi nga xam ne yéen a ngi koy dund par rapport ci opération tabaski daaw am ngeen peut-être xam na boo fekkee ni am na lan mooy yenn jafe-jafe yi nga xam ne léeg-léeg ngeen xaw ko ci dund ndax tam wàllu élevage nekkul loo xam ne lu yomb la lu méttee métti la. no yow loolu moom defe naa euh, suñ ko taxawee sax di ko yombal moom nit ñi dinañ xam ni yombul yar xar dafa metti bu baax a baax a baax a baax mais sant yàlla rek parce que franchement pour wax ñi ko xam sax dinañ xam ni lii moo am xar soo ko jëndee cent mille ah denc ko ba tabaski ñëw nga yar ko 6 mois soo ko jaayee 500000 sax gagné woo da ngaa perte. mais ñi bari dañu jàpp ni par exemple boo ko xoolee foofu rek day xaw a métti ci clients yi maanaam jëndkat yi. day métti si ñoom moo tax nag fi mu nekk nii il faut que sooy jaay xar doo xool daal ne li nga si investir parce que su dee par 100000 francs ngay jënd euh, ah, euh, kii seen ravitaillement di leen ko jox bés booy jaay soo calculer loolu rek doo mën a jaay kenn. moo tax yeeg wax dëgg yàlla moom daf siy def dimbal li gën a tax sax mu dugg si lii moom da daan def su tabaski jotee dafay sonn trop parce que ñi koy yaakaar danoo bari ba pare ñi nekk si ginnaawam bari ku nekk mu bëgg la dimbale ñii am xar mu bëgg leen am lu ma leen jàppale ñii amul xar mu bëgg leen wutali xar léegi nag xam naa tamit loolu na dem ba xool daan ne xam naa mu yar ay xar ñii mu dimbale leen may leen ñi mu war a jox mu jox leen ñi mu war a jaay mu jaay leen nga xam ni soo moytul dina xaw a varier nga xam ni du gaañu bu baax quoi. d'accord loolu moom waaw loolu la la si jublu woon bu buñ koy initier di ko def. d'accord xar yi ñaata ba ñaata la am prix yi fan la tàmbalee ak prix yi nga xam ñoo ci gën a néew loolu moom xam naa fa la ñuy daanelee ma ak yow. waaw parce moom sax day wax ne cent mille ba un million mais man duma wax cent mille ba un million man damay wax ne moom bi mu mën a jaayee un million man am na samay nit yoo xam ne man tamit suñu ñëwee mën naa leen ko jaay. teggi leen si cent mille wala cent cinquante mille waaw macha allah macha allah sëñ Moustapha Samb euh, ñoo ngi lay nuyuwaat bu baax gërëm naa leen sant naa leen waaw euh, mbokk internet yi ni ngi leen ko diggee rek mu mel ni tey ñoo ngi toog euh, doyen Lamine Samba yaakaar naa ne dootuñu leen ko présenté macha allah ci liggéey bu am solo bi nga xam ni moo ngi koy liggéey ci réew mi tam di ko liggéey ci média bi balaa ñuy sore dañu koy jox kàddu gi tey nag ñu fekk ko fii tey ci gétt gi opération tabaski 2019 turandoo nuyu naa la jaajëf Lemzo maa ngi ziare maa ngi lay bëggee maa ngi ziare Euh, mbokk internet yëpp surtout waa jàmm ji info xam nga jàmm rek moom mat a ñaan waaw fu mun na nekk ci àdduna jàmm moo mat a ñaan te su ngeen ubbee lu mel nii tuddee ko jàmm yàlla na ci yàlla def jàmm def ko ci réew mi def ko ci waa réew mi def ko ci jàmm ji info maa ngi béggee Euh, doyen ñu ñu ñu sawar loolu la am ak yow tey jotaay euh, tey mu mel ni tey xëy na tey man maa yor micro bi ah, tey moom dama ko nangu ci yow euh, tey ñu fekk la fi nga xam ne moo di opération tabaski tey ñu bëri ñu ngi doon xalaat tey Lamine Samba tey xëy na tey bu nekkul ci lii nekkul ci activité mais tey nga jël tamit lu gën a metti muy opération tabaski tey bëggoon nañu xam xalaat bi fan la jógee moment bi ak ñaata at ba léegi ba nga ko tàmbalee def. waaw d'abord bii mooy deuxième année deuxième année boo xamante ni ñoo beral suñu bopp am na ci yoo xamante ne nii comme waxoon naa ko dañ daan am ay dix xar dem fekk ku am euh, gétt nga dugal fa sa dix xar jaay jaayaat wala am koo xamante ne nii peut-être day xaw a manqué xaalis nga jël benn euh, deux millions trois millions jox ko di xaar en contrepartie am si benn cinq cent mille ainsi de suite mais 2018 ak 2019 ñu beru ñu def Sambène famille suñ nee Sambène famille du rek ku dëkk sant Samb moo fi nekk de. am na ko sant Diop am na ko sant Mendy am na ko sant jéeju am na ko sant sant yëpp ñu ngi fii pour jàpp parce que idée bi d'abord ni mu ñëwee woon mooy tabaski da doon jot man damay xalaat kan laa war a jox xar te par force dama leen di jox ma xalaat kan laa war a jox nan laa la war a joxe mu metti lool may kalangaatu à gauche à droite su ma jëlee fii jox kii fii kee manqué fii kee nga jox ko pomme de kee nga jox ko soble kee nga jox ko le ma ne nag léegi pourquoi pas ñun mënuñu samp suñu yëfu bopp sa yëfu bopp boo ko mayee boo ko leblee boo daanoo yoonu kenn newu ci parce que sa yëfu bopp la léegi nag loolu moom moo indi adami ñu def ko daaw mu neex su ma nee mu neex mooy desewuñ benn xar ñi ñu war a may may nañ leen ñi ñu war a jaay jaay nañ leen ñi ñu war a lebal lebal nañ leen ñi ñu war a sarax sarax nañ leen te ñiy xool xam nañ li ma wax dëgg la ren nag ñu ñëw deuxième année ñu ngi nii toogaat. te ma xamal la benn affaire xar yi fi nekk yëpp daanaka quatre-vingt-dix pour cent jeex na. Oh. mais mais Lamine ñu bëri dañuy wax ni euh, Lamine Samba bu mu njëkkee taxawal édition bi euh, ñu bëri dégg kan moo nekk ci ginnaaw Lamine Samba euh, ndax Lamine Samba donc financièrement dafa am ko ko post ci ginnaawam mais loolu tey dafa mel yaa ngi tontu question bi ci biir mais pour mu gën a leer kon Lamine Samba ay propre moyen la ak Sambène famille je pense que kon loolu la. ama suñu nee Sambène famille xam nga sama baay dafa daan wax ni bu xew musaana am kiy yëkkati seize ak kiy lal baas ak ki koy jox xaalis la yemale ndax kiy yëkkati seize doolem la am di ko ci jaay ki lal baas dooleem la am di ko ci jaay mais ki am moyen di ko joxe da koo am moo tax mu joxe ko risquement indallah wërsëgu jaam yàlla yàlla day bind jaam yi te yemalewu leen yàlla mun na la boole si famille nga gën ci siiw ëpp ci xaalis waaye gënoo sa benn famille kenn du gën mbokkam nit du gën mbokkam nit nag mën na koo gën a siiw mun na koo ëpp tuuti moyen mais nit du gën mbokkam te li ñoo fay la force dama la bëgg xamal ne la sama rakk ji toog mbay mbay mbay sàmm am na fi ay xar yoo xam ne moo ko yar Tafa am na fi ay xar sama benn jarbaat kàbbu am na fi ay xar yoo xamante ni kon association la boo xam ni famille ñoom ñoo ko bokk peut-être nag li ci ëpp ci man la jóge waaye doxewuma ko waxewuma ko ndax ñoom xam nañ li ñuy ëpp waxuma nag lii bu ma ko waxee gars yi ñëw ne nañ leen may xar de mais daaw maye nañu presque 39 xar. maye 39 maye 39 je pèse bien moo mots 39 personnes jox nañ leen xar yoo xam ne suñu ay moyen bopp boo jaayee xar mi tey mille wala mille mu leen nga ci am nga ci bénéfice su 100000 150000 nga jaay xar mi. 200000 am nga ci bénéfice yooyu ngay dajale demaat jënd ci ay xar yoo xar mi xar yu yem la jox ko jaamu yàlla mais dégg naa Lamine Samba xaram bu ñu nee Lamine Samba que di ci tur bi ci boppam a ragal ne oh foofu moom euh, du du yomb de. waaye sénégalais daa dof sénégalais xamee na xar muy jar cent mille ak xar muy jar million de sénégalais xamee na lool de sénégalais loo ko dóor dóor patron loo ko door dóor dóor boo ko tegalee xar muy jar deux cent mille ne ko un million daf la ko fiy bàyyil. mais mais Sidi Diakhaté tey boo ko doon jaay ñaata nga koy jaay yow Sidi Diakhaté par exemple. dépend mu bëgg dégloo ma ne la am na cent mille ba un million. waaw mu fii mais doo jël xaru 100000 di ko jaayee 300000 loolu fan la am. xam nga xam nga doomu aadama dafa jàpp ci concept nit rek tur bi macha allah yàlla bu la may da ngay nangu loolu mais loolu dafay mel ni dafay xaw a joué ci ñoom euh, faiblesse boobu. waa man dina am ñoo xam ni duñ nekk Sénégal wala ñu ngi biir Sénégal ñu commandé ma ay xar ne ma damaa soxla 100 xar yu 200000 est-ce que damay dem jël xaar 100 xar yu 75000 jox ko ko 200000 sama crédibilité daf ci nekk en jeu du ma def loolu. sama rakk bii démb mi ngi may wax dafa am ku benn soxna suñuy wax madame doy dafa ñëw jënd cinquante xar yu deux cent mille jënd fi dix xar yu yu ñaata yu trois cent soixante quinze mille tafaane ma ni ngay def mooy bu ñëwee même xar yi jar cinq cent mille joxe ko ko trois cent soixante quinze mille ma ne ko pourquoi nga wax loolu ne ma pour ëllëg mu sawar ñëw wala fu mu wàccee xar mi kuñ ko jox ñu xam ni kii lim ko jox lu baax la ñun ndimbal moo ñu tax a jóg amuñu ay moyen nag yi état am kenn nekkul suñu ginnaaw sinon nag maa ngi liggéeye xaalisu banque gps pèse bien mes moo muy Cofina banque maa ngi liggéeye seen xaalis waaye banque xamul dangaa ngaa sibiru xamul dangaa feebar xamul da ngaa pays xamul dangaa ngaa ñàkk xamul da ngaa ku ko leb fay ko dégg nga li ma la banque ku ko leb fay ko moyens yooyu laa jël ak samay moyen bopp yoo xamante man maa ko am ak taqale yi ñu doon taqale ñëw dugal créer Sambène famille li fi gis yëpp presque daanaka jar na presque bu dee cinquante xar ñoo fi nekk jàppal ne quarante cinq yi jar na seen borom dañuy xaar ñu ñëw pour ñu jox leen ko léegi nag lu ma mën pour ndimbal Pape Diouf maa ko jaayoon xar daaw maa koy jaayaat ren Balla Gaye maa ko jaayoon xaar daaw daaw maa koy jaay ren Eumeu Sène maa ko jaayoon xaar daaw xaar daaw maa koy jaay ren Modou Lo ren fii lay jëndee si man xar Bombardier ñoom ñëpp fii la ñuy xam nga lu tax ñuy jëndee si man ñoom lu ñu nekk ma nekk ca kon tam man tam lu ma nekk dañ ciy nekk par force kon maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ku ci bëgg qualité qualité waxuma quantité qualité ñëwul ma jox la qualité nga xamante ne nii boo ko yeewee. kenn du la jéppi te boo demee ba tër ko di nga xam ne ñun qualité lañ la jox mun nga xool après nga xool qualité rek moo fi leen xoolal xar mi par exemple amul sax huit mois xool ko xool ko xool ko xool ko xool mais yan race la yan race la. xam nga tabaski bu taxawee rek race dàqu na. moom waaw. naa dëgg yàpp lañ bëgg de. <laughs> xam nga xam nga fan ngay waaye laa laadum laag super cent laag yow mooy bu tabaski amul mais bu tabaski jegesee raas dàqu na amul doomu maalaw la amul doomu turundupi la amul doomu kiile amul pur cent déedéet parce que gétt ngay taxawal ku ku nekk xar mu la neex ngay ñëw jël jënd yóbbu tabaski bu taxawee rek raas dàqu na te nag gars yi seen xar yu baax yi tabaski lañ koy génnee te bu génnee kii bëgg di jënd yor xaalisam xool na ni kii doomu kii la wala doomu kee la day ñëw jënd yóbbu tabaski. Eh, est-ce que xalaat nañ Lamine Samba un jour viendra dana gën a yaatal mbir yi euh, yóbbu ko fu gën a yaat parce que ni ma li ñu gis ni première année deuxième année mu tollaat ni presque mën nañ ne jeex na euh, mu mel ni tamit euh, ñu ko ci xamul tamit xam nañ milieu am nañ cofeel ci yow ba tax na at yii di ñëw dañuy bëgg nga leen di jox lu ni mel est-ce que yaa ngi xalaat koo yàngilaat yóbbu ko ailleurs gën koo yaatal. les Parcelles Assainies à César ce qui appartient à César. su ma sañoon vingt six unités yëpp at mu nekk unité un ba vingt six dañ fay teg ay daral unité un am bosom ba vingt six géejawaay fenn du des parce que la banlieue m'a tout donné su ma goree damay delloowaat banlieue bi lépp